ginnaaw bu ñu leen nuyoo sant leen sargal leen jiital ci nuyoo bi nag euh, seen mag seen nijaay seen lépp muy nootul notre frère Ablaye Thiam euh, di sant ñëpp di lu présence su bi ci suñu waxtaanu tey bi xam ne dañuy waajal suñu ñetteelu ndaje bi ñu war a def pour di sargal ay sénégalais euh, bu ren bi nag ñu tudd ko maître Waljooju Njaay Waljooju bu ñu ko waxee ñu bëri du ñu xam Waljooju mooy kan ñenn ñi dañuy dégg rek ñu naan lycée Valdiodio Ndiaye mais xamuñu kan mooy wal Valdiodio Ndiaye te ñun jàpp nañu nii dafa jaadu ci am réew réew mi di bañ a fàtte boppam nit du fàtte sa histoire parce que koo xamul foo jëm jóge doo xam foo jëm parce que histoire mooy mooy mooy mooy reenu doomu aadama donc soo xamul sa histoire mooy lan dama tooñ keroog benn benn ministre ma ne ko est-ce que xam nga ndungu sin ndungu sin mun ma mais ndungu sin mooy kaso que non Ndoumbou Sine du kaso c'est une contrée du Sénégal boo fa demee tey Ndoumbou Sine foofu euh, anglais yi dañ fi ñëwoon xeex fa ak sénégalais yi ñu dàq leen Ndoumbou Sine c'est vers Kaffrine entre Kaffrine et Tamba mais fi boo déggee buñ ñu nee Ndoumbou rek les gens pensent à la prison c'est pour dire que ñun dañu war a xam ñu ñooy kan nit ki mënoon di jàng l'histoire de la France bu ñu la laajee France nga wax ñu depuis wax ñu. révolution 1789 wax ñu li ko jiitu woon États-Unis nga waxal ñu loolu leneen leen te suñu Sénégal bi ñu moom xamuñu ko quand on parle de conk pose la question su ma laajoon fii tey conk xay na ñuy tontu conk mooy la du bari dans la salle si c'est si parce que dafa am une bataille atroce bu métti Casamance yi duma fa tubaab yi c'est comme la rue Sandiniéry yooyu yëpp c'est des batailles yoo nga xam ne Sandiniéry ay jigéenu Casamance ñëw ñoo fa woon tubaab bi ba dàqal ñu génne leen dëkk bi donc ñun dañu war a jéem a xam temps soit ci cadre boobu moo tax ñu ni dañuy jëli ku mel ni Valdiodio Ndiaye Valdiodio en 1958 booba Sénégal moomagul boppam Afrique moomagul boppam général de Gaulle di def tournée jaar Guinée dem ci yenn dëkk ñëw Sénégal ba mu ñëwee Sénégal sengoor mi jiite woon réew mi gisuñu ko Mamadou Dia aussi gisuñu ko. ñii nee na dafa feebaroon ñii ne dafa tukki woon mais li wóor daal mooy wal jooju Njaay moo taxaw jàkkaarloo ak De pour ne pas dire jàmmaarloo ak moom je dis jàmmaarloo parce que discours ba mu wax d'ailleurs yu sunur wax na ko ci benn woy même bu juumee ci date yi parce que dafa woy juum lu wax cinquante neuf après ñu bon ñëwaat na cinquante huit ñëw sax bon bref mais woy na ko euh, bi bi wal jooju Njaay pare discours am dafa laal De laal boo xam ne De ci la jóg ñu leen bu ngeen bëggee indépendance jël leen ko le 28 septembre kon kooku te loolu amewoon fii ci place de l'indépendance jamono yi mu tuddoon place trop euh, proté kooku jàpp nañu Sénégalais yi war ñu ko fàtte ak ñeneen ñu mel ni moom ñu waxtaan ci ak njabootam jaarale ko ci maître Pape Sambare Diop mi nga xam ni jarbaat la ci moom mu eggalee ñu ko ci maître Guedel Ndiaye bii doomam ñu di ci boole également notre ami le premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye nekk jarbaat ci moom Me El Hadj Diouf également nekk jarbaat ci moom ak ñëpp ñi nga xam ne famille Valdiodio Ndiaye la les anciens yi nga xam ne dañuy jàng également lycée Valdiodio Ndiaye ñu di leen ci associé ñu bëgg ko def bu ci yàlla àndee le 11 mars ak Kaolack cœur de ville loolu moo ñu may occasion ñu gërëm le gouverneur de la région parce que dañ ko wax rek ni ko lii liñ bëgg a organiser mu rafetlu ko wax ñu ne administration bi yëpp dinaa ko mettre à votre disposition mu jàppale leen le maire de Kaolack également Serigne Mboup bi ñu ko woowee wax ko ko immédiatement daf ñu ni pare naa pour lépp lu ngeen bugg a def man ma jàpp jàppale leen ci pour ngeen mën ko réussir donc ñooñu il fallait que ñu remercier leen bu baax di wax nag à tous les Kaolack waa su ma nee Kaolack waa Sine Saloum moo tax ñuy wax que ñëpp woo nañu leen ci mais également nag loolu aussi il faut ñu leeral ko bu ñu yaakaar ne dañuy toog seen kër ñu ñëw di wëri kii que ce ndax li ñuy def jàpp nañ ni ñëpp lañ koy defal ñu ngi woo ñëpp ñu dugal ci seen loxo. ku ci dugal seen loxo ñu xam ne dugal ngi sa loxo danañ ko wax ba ñëpp dégg ko ku ci dugalul sa loxo wax dëgg yàlla du ñu dem di wax naan diw def na li wala def na la li alors ñu ne bu ñuy sargal wal jooju comme ni ñu ko defee woon dañu jël Matar Ba teg ko ci njiitalu Matar Ba président mu nekk président d'honneur président effectif bu manifestation bi wut ñaari invité d'honneur benn bi mooy votre doyen Ablaye Diaw sargaloon nañ ko fi première édition bi mais également famille Maba Diakhou Ba parce que ku wax Sine Saalum wax ba Diakhou Ba ku wax ma ba jaxu Ba fàttali la bataille de Pathé Badiane comme ni ma ko waxee nii te bataille Pathé Badiane dafa am lu ma wane ci af ci Sénégal mooy kilifa yépp àndandoo même les chefs religieux yónni ay délégués ñu ñëw ànd ak Maba jaxu Ba xeex ak tubaab bi ba dàq ko loolu jàpp nañu dafa nekk événement bu rëy moo tax ci loolu danañu ñaanaale suñu frère yu mel ni professeur laman mbay ak euh, Massamba Gueye ñu préparer du du lu ñu gëstu parce que lu ñu jàng la ba naan ko ñoom ci occasion boobu ñu mën ñu sànnil ay kàddu soit lu jëm ci wàll jooju Ndiaye soit lu jëm ci euh, Maba Diakhou Ba et la bataille de Pathé Badiane ci même cadre bi aussi ñu décider ni ñu koy defee saa su ne sargalaale ay yenn doom Sénégal yoo nga xam ne jàpp nañ ni mérité nañ ko ñu jiital ci ku mel ni Serigne Mbuub su ma ne Serigne Mbuub nag waxuñu le maire waxuñu l'homme d'affaires mais sëriñ bu doomu daara la ñuy wax parce que loolu dafay wane ni daara nit mën na fi jaare doon lu ne parce que sëriñ jàngul école tubaab yii ngeen jàng mais ci daara ji la jaare ba yàlla defal ko tey mu egg fi mu egg ñu boole ci également ku mel ni lu ministre Ablaye Sow su ma ab Ablaye Sow aussi li ma wax valable ci sëriñ mooy valable ci moom du ministre bi la ñuy sargal mais doomu Sénégal bi nga xam ni xëy na échec moom la ñu waroon a gën a séntu ci mu réussir parce que nit bu fekkee ne d'abord fa nga juddoo xëy na sori na mën naa am ni say waajur euh, seen loxo mën na bañ a jot seen ginnaaw mën na am ni xëy na ñenn ñu nekk ci biir euh, yenn conditions yi ñoo waroon a gën a mën a réussir ci sa place nga jóge ci instituteur adjoint di xeex di xeex xeex ba nekk administrateur civil jàpp nañ ni kooku am nga ndam. jóge ci ay mouvement nawetaan ba bokk ci kàngam yi décidé ci sport ci football Sénégal ak Afrique jàpp nañ ni ñaar ñu mel noonu war nañ leen mën a yëkkati war ndawu Sénégal ni leen ñii kat fii la ñu jaar ba ëgsi fii fa ñu jaar ba ëgsi bi yéen war nga fa mën a jaar ñu jël également jigéen ñuy wax Njuug Mbay dëkk Kaolack xam ne moom moo jiite association wu jigéeni kaw bi combat bi muy mënee pour développement jigéen pour jigéen ñi am suuf pour jigéen ñi am matériel agricole foo ko fekk loolu mooy combat kooku tamit ñu jàpp ni war nañ ko mën a sargal ak seen yaay lépp ci yéen ci ñun ñëpp sax lay wax muy madame Annette Mbaye d'Erneville muy jigéen ji jëkk a doon journaliste ci Sénégal doon jàmbaar aussi parce que li ma wax nii ci wàll jooju bi ñu jàppale dañ jàppale boroom këram mais mu taxaw di résister di xeex nekk ci liggéeyam nekk première femme juge ba tey ay doomam am doom sax bu nekk cinéaste maa ngi koy rappelé tout ñu jël aussi ki jëkk a jiite suñu association bi booba nekkaguloon fondation muy Moustapha Fall Thiey ñu boole ko ci ñi nga xam war nañ ko sargal Tassirou Diallo mi toog ci suñu wet bu ñuy set ci histoire Sénégal jàpp nañ ni ku dul Koulibaly bi nekkoon ASFA mi dugaloon 42 buts ci benn saison moo tax léegi boo gisee booy dugal ay 7 buts 9 buts 10 ñu naan mooy meilleur buteur de euh, mooy meilleur buteur de saison bi Euh, Koulibaly avait marqué 42 buts Tassirou avait marqué 36 xaw ma 39 buts dans une seule saison ñu jàpp ne ñooñu aussi war nañ li mun fàttali euh, kii ci topp mooy benn xale sénégalais nekk euh, arabisan nekk Maroc fi ñu jamono yi ñuy wax di def benn doctorat gagné concours Faysal de poésie en langue arabe ndax Arabie Saoudite dañuy organiser concours boobu ren juróom-benni téeméeri candidat la amoon. jóge ci réew yëpp ci continent yëpp ñu def concours poésie xale boobu gañe ko te nekk sénégalais jàpp nañu kooku aussi war nañ ko delloo njukkal Mohamed Ndao Tyson ku nekk gis na lu mu def ci làmb waxuñu combat yi rek loolu waxuñu ko parce que bu ñu doon wut ku am ay victoire rek ku ëppal victoire doo jël Tyson doo jël Balla doo jël Modou ay Gris Bordeaux ñooñu bu dëgg la ñu teg fële. parce que am na fi ay mbër yoo dañ dañu ay centaine de victoire lañ doon am ci làmb mais li Tyson indi ci làmb dafa bëri indi na ko ci cachet bi indi na ko ci duggam ci làmb indi daf ko révolutionné indi ci fulla ak fayda parce que avant Tyson ak ni ma koy waxee avant ku mel ni Youssou Ndour ca la ñuy yëngatu bu njëkk am na nu leen sénégalais yi gisewoon mais bi ñu ñëwee am na loo xam ñoom changé nañ donc Tyson également jàpp nañu war nañ ko ci mën boole. ak suñu xarit suñu jarbaat peut Ami Mbàkke Caam suñu juumul seul mooy sël sénégalais boo nga xam ni euh, yor na médaille d'or mondial champion du monde ci wàllu athlétisme ndax euh, dañuy wax toujours les performances de Amadou Diaba mais Amadou Diaba était vice champion olympique mais Ami Mbàkke Caam a été champion du monde donc loolu mooy manifestation bi euh, ñu bëgg ko def ni ma ko waxee sànq le 11 mars buñ ci yàlla dimbalee suñ ci yàlla dimbalee la 11 mars bu ñu xëyee ñu wàccee kaamil ñaanal ñu fi jiitu ñi jiitu rawatina ki nga xam ne moom lañu koy moom lañu ko tuddee ensuite ci ngoon gi ñu def cérémonie bi euh, cœur de ville am ñaar ñu ñu jàpp ni ñoo ko war a muy orchestre Kaolack benn orchestre région ak benn troupe ngoyaan parce que kenn mënul wax Sine Saloum te boole woo ci te boole woo ci ngoyaat mooy mooy mooy xorom si mm-hmm. donc noonu lañ bëgg a tërale manifestation bi euh, di ci invité nag ñëpp d'abord la famille de Valdiodio très large ay xaritam ay les anciens du lycée jooju Ndiaye ak même ñi fa nekk aujourd'hui au lycée Valdiodio Ndiaye toutes les autorités de Kaolack amul xejj amul seen du politique du syndicat du tarixa du diine yëfu képp ku bokk si Sénégal sax la ñuy wax xëy na dañ ko defi Sine Saloum rek mais yëfu sénégalais yëpp la parce que jàpp nañu ne am na ay nit yoo xam ni même ñi ñu jujju sax moomu ñu leen dañ leen bokk ak ñëpp donc ñu ngi lancer un appel à tout le monde lu ci waay mun a jàpp pour que mu réussir vraiment nga jàpp ko ci mais en attendant damay rappeler ngërëm li nga xam dañ koy amal déjà au au niveau du gouverneur ak le maire de Kaolack euh, notre ami Serigne Mboup parce que xëy na bi ñu tàmbali woon ñoom ñaar bu ñu xawoon a am na nañu doxale waxuma ne dinañ bàyyi parce que dañ koy def sans ñoom mais bu boobaa dina du gën a yomb comme ni nga xam noonu la yombe donc encore une fois ñu ngi leen di gërëm di leen sant